taarix la ndax chemin de fer ñëpp xam nañ ko saa yi ñu tuddee Thiès war nañu mën a tudd chemin de fer kon tey suñu ñëwee war a dekkalaat chemin de fer ci kaw ndigalu président de la république Macky Sall ñun mbégte lañ ci mën a am di xam ne nag lii ñuy def Thiès waay yi lañ ko defal ndax chemin de fer saa yu dekkee Thiès waay tax chemin de fer nag. moo gën a gaaw chemin de moo gën a wóor chemin de moo gën a yomb kon na ci ñëpp jàpp pour que liñ ci bëgg mu mën a nekk waaye xam leen ne yëpp du yem fii incha allah fii ak ay bés dinañu dekkilaat train bi mu jógee dakaar yenu ay marchandises ak conteneur dem ba Tambacounda ndax Sénégal mënut a dem sans chemin de fer bu wé bu wér te